baax a baax jox leen seen wàccuwaay yi ñuy bàyyi xel d'ici de la diaspora la quinzième région euh, bokk ci kon ñi nga xamante ña nga foofee ci Belgique France Italie ak Espagne rawatina ñoom Amadou Sall Sam Babacar Faye mboolem ñi ñuy xel ca bitim réew di nuyu bu baax a baax suñu yaay ajaandey Kumba Samb di ko ñaanal jàmm ak wér waaye di nuyu doyen Ismaïla Aydara bu confidentiel Afrique borom euh, les 100 jours yu jomaa yi nga xamante incha allah daa ci ñëw euh, ci diisoo ak yeneen jotaay bokk na ci kon plateau bi duñ ci wéet benn yoon nekk rek dañ ci xamante ñoom lañ koy seqal bokk na ci le disciple de xalaatu xulu et de Aman Lalo Ali Manga le journaliste burkinabé désormais sénégalais Ali maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay Abdoulaye comme man ni koy faral di waxee rek man je suis africain avant d'être sénégalais donc boo ma waxee noonu. du ma métti. mais certainement kii nag. mais nag Sénégal jaay gii laa juddoo. dëgg dëgg da nga da nga niroog kii président Bissau Guinée bon su ko em da ngeen niroo da ngeen am ay tere de. <laughs> non non man nag man nag man nag ñi ma gën a sopp ci këru àdduna. te def leen sama xol man sëriñ pour man sëriñ ngay niroo. waaw waaw yàlla nga gudd fan te ànd ak gis naa ne ne yéen ñaar man nit ñi di niroo leen waa Abdul Bayti Rasul te nga xam ne man dama leen a bëgg sama xol. yéen yéen loolu ñëw ñu fi moom buñ tegee dama la jox àll. waaw ah. ren fii laa la xamee buñ tegee dama la jox àll. waaw ah, waaw loolu lay dëgg nag koo bëgg niroo ak moom te ñooñu dama leen a ah, bëgg sama xol non ba li mu wax rek li mu wax rek ak ëpp na addu sama xol ni mu sedde euh, di nuyu sama rédacteur en chef Mame Goor Ngom tey maa moom ñoo bokk plateau bi moom séeréeru kii la daal déggul séeréer rek mhm. xam naa tey beneen bi di nuyu coach toujours c'est plaisir di bokk ak moom plateau mhm. di ay kii yoo xam ne yeete yu am solo lay faral di def mhm. euh, di nuyu aussi sama co ay Aïssatou Ba bàkkul la jeeri dëgg la borom tuya borom tuyaawoon pël. dëgg la pël bu déggul pël. génne leen si man mu déggul mu déggul. dégg non dégg naa. non moom dégg na daa mais. lan la dégg mais dégg na de. kii daa mën a wax dara wax ko mu nuyu ci pël. Aïssat nuyu nañ la. man jàngaluñu ma journalisme si pël journalisme jàngaluñu ma journalisme si pël maa ngi lay fay. maa ngi lay fay di fay amee téléspect di nuyu amee téléspectateur. facette yi Sénégal yi di feeñ ñu xam ne nii tey. su ma toogee fii moom concentration. bu ko neexee làkk séeréer man su neexee làkk séeréer rek pël. kii bu ko neexee làkk naar fi mbokk daa bëri nuyoo ci pël nuyu naa la. fay naa la di nuyu jamtan jamtan ay eh, mi nee jam loolu ne laa si mën soo xam-xam foofu la yem. <laughs>

Ngom. Euh, ah. rédacteur en chef. kañ la Mouhamadou bi dugg. ah mais mais. <laughs> doo ko doo <laughs> mais nee naa maam ko Serigne la. mais ah. Ah. Jomaay Faye du leen koy wax. waaw ah waaw. Jomaay waaw koo koo ko taxaar rek day jël. Baab Góor foo ne ko Baab eh, <laughs> Góor. mu ne wax voilà Baab Góor mu ne du góor. maamu Ah, <laughs> waaw maam góor. waaw waaw la maam góor dëgg mooy du ngóor non non loolu loolu. je suis séeréer moom ngóor moom parce que ngóor mooy maam góor dëgg. déedéet ah. lañ ko tudd waaw waaw waaw ah. mooy maam bu góor. waaw waaw waaw. loolu la. waaw loolu waaw noonu waaw noonu la a xam xam nga Bawol dafa bëri maam góor ak Saloum sax. waaw waaw dëgg jàmbur yooyu bari na ay maam góor quoi. mais en général nak amna benen tour burul mam waaw waaw lool lay doon ñaar day doon touru ciosan quoi waaw waaw waaw xam nga xam na rew mi nga yow xam nga rew mi xam nga xam nga doguma la yow def nga burkina faso def nga fele <laughs> xam nga legui la lay netali legui mais bizarre ba nak taxi yi fu ma dugg man suma waxe nit ñi wolof ñu ñu lak ma tubaab yaakar na ñag la giso benn jour ma ngi netali dama and sama cousine dem dem dem marché face ñew di jënd di ñi jënd ndugu may wax ak ki jaay euh, maire bi jaay ma ne ko lii lan la jaay jaay ci mooy batance mu ne ma saase la batance ma xam ne kii moom it lay la ma joxoñ ko xuli ñëw te ko wax waaw ma joxoñ ko xuli ñëw ne ko saase quoi mu ne c'est le frère di batance <laughs> waaw maa ngi lay fay Abdoulaye maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yëpp euh, waa GTV. Hmm. di nuyu euh, ñi nga xam ne ñoo ci plateau bi coach Ali Mangassa. Ah, moom tey daa door kii. lii tax ñu lay jaawale kii rek <laughs> <laughs> gars yi waaw di nuyu di nuyu Aysatu waaw Aysatu moom temps yi moom mi ngi ci kii bi mu ngi ci ah. internet bi mhm. li ci xew mhm. waaw di la nuyu am na solo tex euh, jàmm xewal rek mhm. waaw ñu ah, fas yéene jublu ci waxtaan bi sa doyen mu ngi lay nuyu Ismaïla Aydara ah Ismaïla moom suñu waay la. waayu télé bi la quoi. Mm-hmm. Ah, waaw ko baax la. Mm-hmm. xam naa ne gars yi ñu ngi xaar bi billet màkk yi comme billet yi kër gi daal bëri billet. billet màkk. ah moom góor moom mooy borom billet yi de. <laughs> Ah, ah, bi billet de salon billet de. départ ah d' boobu bokkul ak billet bi. <laughs> waaw waaw mais nañ ko naa billet yooyu moo gënal. ñii de banque. moo gënal gars yi de. ah <laughs> gars tuddee sëñ Bas. <laughs> waaw <laughs> bu bëre beneen bi. waaw am na solo euh, coach su El Hadj Ndiawar Ndiaye moom duñ ko waxee rek xel dem ci El Hadj Mouhamadou Ndiaye déggan ma ñu duppee école ba ca Géejawaay di woon muhaddam ba euh, am euh, taxawaay ñu ngi lay nuyu baax coach su El Hadj Ndiawar. waaw Cheikh Abdou maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi waa plateau bi yëpp di nuyu suñu suñu grand Ali Ali le jovial. ak suñu jigéen bi. di am un grand plaisir toog ak tey Mame Ngor xam naa tey la ñu doog a toog plateau maa yow vraiment c' un grand plaisir. waaw waaw merci beaucoup ndax yow nit ku baax nga quoi. Abdou ma nuyu rek alxalif. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Medina Gounass. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko tawféex. dolli ko wér mais ziar bi ziaru istimdaat lay nekk pour mu tubb ñu yóbbu ñu ci yàlla ndax nitu yàlla la. ak sunu maam Thierno Bassirou Tall xalif omérien depuis Louga. ah kooku danaa la fa jox information. Chérif Abul Moutalib At-Tijaani yi. fan yi dafa demoon Louga. ci ah. Ah, Chérif Bachir moom ma ne Louga daal am na lu rëy kon. billaay maam Thierno Bachir mu daga gaaxataal man sama xol sedd lool waaw. loolu tawféex la. waaw Chérif mu Abul maa ngi koy nuyu di ko jaar. Mm-hmm. kooku moom sama waajur la. alhamdulilah am na solo. merci beaucoup Babacar Alla Voyage ñuy message ñu ngi koy nuyu depuis Colobane moom waxtu yi rek yàkkamti naa wàcc ba. seetaan ñu keroog bi toj na télé bi. blanc bi mu sol keroog toj na télé bi. ñing koy nuyu di féliciter nak soxna ci soxna ma ko xam naa. mu ne ko añam bi bi mu ñu doon invité à la place de Biya gi léegi euh, maam góor mooy ñëw pour la nga invité ko ci. ah mais biyaag yi lañ doon bokk na te biyaag yi nekk waxtaane boobu dañoo xam maam góor. <laughs> mam góor day añ si añ boobu il faut ñu defi ko kolobaan am solo merci beaucoup Babacar ala voyage en tout cas ñing koy nuyu bu baaxa baax. di nuyu euh, Axif Ibrahima Cissé mi ñuy bàyyi xel bu baax euh, Famara Ibrahima. di ko euh, di ko nuyu bu baax a baax bi ma yónnee léegi vidéo sax xoolaguma ko bu Axif nga am ne fan yi mi ngi woon ci ay jafe-jafe.

gaa ko wax. mais mais il faut ñu jël ko yàlla nga tam ñoom. waaw loolu ñàkk ay ñu wër dégg naa. Ah. nga bongoon ay ay Racine ay Aliou Seck ay yu nekk ay maam Góor rek. gaa <laughs> yi wax rek mooy dégg. <laughs> en merci beaucoup mbooleem ñu ma ko souhaité démb euh, di le 7 juillet bu ñëwee rek euh, di bés boo xamante ni en tout cas euh, tous les natifs de set même date. ñi leen di ñaanal fan gudd ak wér ñaani rek moo ci am solo parce que nit ki comme bu juddoo euh, dañu koy dañ koy dañ koy woo imam euh, tudd ko ñaanal ko kon moom it bu bësam dellusiwaatee ñaan gi rek moo ci am solo waaye ci des yëpp xëy na euh, ay détails la rek donc en tout cas les prières elles étaient nombreuses ci ñi nga xamante ni ngi ñu doon Euh, seetaan euh, en tout dañu bàyyi xel bu baax a baax merci beaucoup euh, mboole photo bi nag démb daa ñu bëri ñu ma woon am félicitation ci nomination bu bees ah. <laughs> mais ba nomination bu bees ñu <laughs> ñu ma gars yi ñu ngi koy partagé fu ne félicitation ci nomination bu bees ma rek nomination anniversaire la ah. <laughs> merci beaucoup waaw bi aussi ah, kii Samb Biagui waaw maa ngi ko ñu ngi koy nuyu waale di ko ziar waaw waaw ah, en tout cas merci bu xëy na beneen nomination bi am fi yàlla na doon euh, sama droite ah. waxu ko nag ah, man maa koy waxal ah. man mii nga bëgg a wax man nga bëgg a wax. Hein? parce que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il hein? droit en c'est pas parce que. peut que je euh, non non non <laughs> parce que xam de. Ah, ah, fii waaw waaw waaw mais fii daa daa ray lëg lëg de. ay lëg daa lëg lëg de je le dis sincèrement. quelqu'un boo xam ne peut-être man dégg naa dégg xamante nañ sax loo xam ne peut-être du daje fii. mais man bi ma ko pratiquer aussi j'ai vu un professionnel quelqu'un boo xam ne am na xam-xam ñeme na gëstu hmm. te je pense que moom doon na koo xam ne war na mën a apporter contribution ci minimum ni muy mhm. par rapport ak régime bu bi man gis vraiment ne war n'a fenn day ça je le dis sincèrement. bon bi tam aussi toujours day wone disponibilité ci ñun mhm. Ibrahima. Mhm. c'est bu actif. diko du du du du du du du du du du mais inna allaha ma saadiqina waaw soo nekkee ci dëgg gëmal ne yaa yàlla yéen a ànd bul ragal dara demal waaw dëgg la waaw merci beaucoup en tout cas euh, le fils de Ousmane Sonko allez waaw Famara boobu laay wax sax mhm. man yàgg naa ko xam ah yàgg naa ko mhm. xam mhm. mais fii dama gis ne vraiment il est très disponible pour ñëw fii Mm. chaque jour mi ngi fii euh, même premier premier jour bi sax fille mm. bi nous koy il fii nii mm. ñëw na euh, ñëw na donc bu demee ba ak li muy li muy xeex tamit euh, dafa am solo parce que banque yi nag ku ko wax ku ko waxul ah. ñu ñuy bëgg a rey ah. Ah. léegi nag xeex ak ñooñu nag tamit dafa metti mm-hmm. xeex ak ay ak parce que c'est elles sont trop puissantes donc dafa metti do do li ko dal nii nii nii xaw ma moo daf xaw ma deful mm-hmm. mais nañ koy ñaan yalla mu et puis jóg rester debout quoi. Mm, dëgg la parce que moom nit ñi dañ ko soxla. Mm, dëgg la Sénégal yi dañ ko soxla ba pare ñeneen tamit dafa war dañoo war a ñëw ci moom jàppale ko parce que xeex yi. Mm, du moom rek bopp xeexalul boppam. dëgg la ñëpp lay xeexal. parce que mbiri mbiri banque moom. gars yi il faut ñu jóg ci. parce que li xewu Afrique ak banque yi. Afrique rek la xaw. Mm-hmm. te moom ci daw dox aw laajtam. xeex bi yàgg a ci trop. Mm-hmm. buñ ko discrédité ba mu daanu. waaw gars yi dinañ mën a waaw waaw loolu de moom dëgg la moom surtout loolu a li ñu wax nii nii nii. na am erreur la. waaw l'erreur humaine. Mm-hmm. Euh, euh, mu fëggatu rek daal di jógaat na euh, jeex na. il est libre léegi nag na continuer combat. bi moom nit ñi. ba pare nit ñi jàppale ko ci combat bi. la parce Sénégal mom dañ na ma ngi sa ginnaaw rek. waaw waaw waaw waaw ñu jàppale ko ci combat bi. Mm. may ko doolé ba nga xam ne dina mëna jakarlo jàkkaarloog ñi. Mm. je pense que lool euh, gaay ñu ngi ci daw seen laaj di diko di ko invité ak yooyu mm. euh muy ñew di ci wax. ñeneen ñi aussi war nañ ko may na may possibilité boobu quoi. waaw muy lu am solo merci beaucoup en quoi ñu ngi koy euh, souhaiter euh, ñu ngi koy bokk encourager ci combat boobee di ko wax ne ñi ngi ci ginnaaw moom Famara Ibrahima Cissé du ko disponible ni ko waxee sànq man moom. maa ko gën a sonal fajar sax moo ko wooyee day bàyyi lépp ñëw. en tout ñu koy euh, ñaanal ci combat boobee yàlla gën ko ci may ndam li nga wax lu am solo la ñëpp bañ a euh, toog rek seetaan ko ndax réew dafay soxla aussi ñoo xamante ni dañuy géerul euh, boobee di wàllum kon ci consommateurs yi taxawu leen seen i tawat en tout cas xibaar bu bi mooy doomu Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ko barricadé woon marti martyrisé koon ci at bi ñu wees ak ñii di les FDS di force de défense de sécurité di jo du di jo jogoy sàllan

ak mboolem ñi nga xam ne aussi am nañ ko ak fépp fu ñu mën a euh, bokk ak fu ñu mën a xeetoo rek yàlla nañ ci yàlla defal ndam bu baax a baax a baax a baax sama yaay maa ngi koy nuyu maman Thérèse Diagne depuis Paris mu ngi seetaan baax a baax mi ngi may message léegi di ko ñaanal jàmm en tout cas ñi ngi souhaité kon bonne chance à tout ñi nga xamante réussir nañ ñi nga xamante aussi yàlla dafa def ñu dem deuxième tour wala yooyu yàlla dafa leen ci dem ñi nga xam tamit dañ leen cee mujjee ajourné wala génn leen ci yàlla na yàlla may xolub muñ tey ñu taxawaat bu baax a nekkul nekkul nekkul euh, nekkul ku ku lu ma ko mën a tuddee. Euh, moom daa war a doon li voilà a nekk enseignement expérience rek amul dem loolu la war a doon. donc kon ñu leen ci ñaanal jàmm bu baax a baax di leen ci en tout cas. Euh, encourage xanaa leen di ñaanal bachelier ak moom mi rek ku yebu def régie financière rek inspecteur impôt da nga daamel état yi dox na ci biir réew de. ah, ah, ah, ah waaw waaw dem bañ a wàcc yoon. ah ah ah nekk comme nekk jël comme ñaar ji nekk. aujourd'hui ci bopp réew mi nga jël len comme modèle. da bëgg wax né bu démb don tay football ngay jàng don Sadio Mané wala jàng impôt dobe. ba la ko wax yow da nga yow nak yow nag maa gis. <laughs> mais mais mais mais lii tamit euh, ah. Abdou. je pense c'est une leçon quoi. dëgg la euh, mbir mi bala moo neex. Mm-hmm. day naqari dëgg la. day naqari te même ñi échouer ba ren. dañu war a góorgóorlu pour déwén ñu. jàll ko préparé ko jàll ko. Mm-hmm. parce que ren ak déwén benn la. Mm-hmm. donc boo échoué ren déwén nga préparé jàll. Mm-hmm. et li beneen jàngat bi ñu ci def mooy. Euh, c' est c' est c' di l'ironie du euh, bi daaw. moo papaam ñoom leen tëjoon. c' fii fii nii suñu sunu wet. dëgg la fii si kër góor gi. papa mënul génn fenn. mom mm. aussi mënul génn parce que mm. traumatisé na ko. Mm. ba moom mënta def doon normalement ba conditions yi réunirul. bon xam naa loolu aussi peut-être mën na participer ci ci échec bi. heure bii ren bàyyam bokk ci ñi jiite réew mi. Mm-hmm. moom mu ñëw am bac. ak mention donc ak mention. Mm-hmm. donc peut-être lu ko amoon daaw sax. Mm-hmm. mën na ko bañ a am ak mention. waaw wala mu bañ ko jik donc loolu moo tax àdduna moom euh, da ngay teg lépp ci loxo yàlla. waaw te góorgóorlu nag euh, sabablu. et je pense que Ousmane Sonko di doomam ak même Diom Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne ñoom ñëpp mujj nañ dem kaso. Mhm. loolu rek euh, mbiri mbiri ñoom seen élection bi. Mhm. chaque jour damay wax ne nit ñi dañ ci war a jàngat. Mhm, yàlla. parce que mbiri yàlla la. programme yàlla programme yàlla kenn mënu ci dara. loo tax nit. Euh, ab jaam. warul tiit. warul raf. warul jaaxle. boo jiitalee yàlla rek. lu jot day yomb. Mhm. je pense que lii euh, ku leen newone heure bi dina mhm. fek tay ngeen nek ki nek palais ki nek primature. Mhm. kon kon ñu ñu ñu ñu ko. ñu weddi ko ñu diriger. sen dom mi ngi ni dom ji dañ koy garder. ay lay école. mu dem ñu xaar ko ba mu ñu ak dem ga. te heure dañ ne ko bul bouger. bul yëngutu bu bëgg a jàng ñu ne ko déedéet bul yëngutu bul dem tey garde du corps yooyu ñoo koy jël di ko yóbbu fu mu jëm dañ koy garder. waaw dëgg la kay waaw donc donc tawhid la tawhid la quoi li loolu nag war na am jeexital ci nit ñi. war na am jeexital nit ñi boo amee sa boo amee sa fulla am sa fayda am sa ngor. Mm-hmm. waroo sax toppatoo nit. Mm-hmm. nit. Mm-hmm. parce que nit mënul dara yàlla moo mën lépp. Mm. mënu bul jël sa destin ne man kii euh, daal bu bu bu bu ci jàppul damay torox. Mm. bu ci jàppul damay torox. Mm. moo bul ko def yàlla moo fi nekk. Mm-hmm. donc ñii ngor gin am ak fulla jin am. Mm-hmm. ba toll fii ñu toll. ñun ñi aussi ngor goog la war a am. Mm-hmm. ak fulla ji. Mm-hmm. ba loolu li ñu am même buñ ko mënta am aussi lu ñu am dañ koy mérité. Mm-hmm. amul saraxu amul <laughs> amul nekk fi naan. Eh, boo loolu boo ko defee sax gëmoo yàlla ko waaw ah, dëgg la ah, waaw c'est ça. Ah, xam nga maam Ngor li nga wax dinaa ci dolli dara. xam nga xam nga euh, am na waajoo xam ne. Euh, dafa yor xam naa xaalisam moo bari ci poosam. mu xëy suba ne dafay jënd ji di waxtaan ak soxnaam ne ko suba de bu ma xëyee damay jënd ji xaru tabaski. jabarit na ko incha allah mu ne ko lu ci incha allah bokk xaalis bi man maa ngi ak moom yor naa ko te suba damay jënd ji xaru tabaski kay loolu jaru incha mu xëy suba di dem di ñu tafu xaalis incha allah ji mu xëyaat suba euh, dem xam naa xaalisam bu mu yoroon mu waat ñëwaat daal di ne waaye man de newaat soxna si da doon jënd ji xar wax ko mésaventure bi ko ci dal soxna ne ko waxoon naa la waxee incha allah mu ne ko man naa la ay allah moom du ma ko wax te yor moo yi ma ko defee mm-hmm. daal di daal di demati xaalis ba mu xëyaat suba daal di daal di toog ne ko ne ko doo doo doo jëndi xar mu ne ko insha allahu rabbi boo <laughs> tax dugal yàlla dafa baax xam nga man damay faral di wax naan euh, bon xam nga nag télé des fois day naqaree wax quoi parce que léegi diine ji peut-être fii day am ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom ñoo ko war a mais dama mm. naan algorithme bii doxal àdduna fa inna ma'al usri yusran da cee bokk mm. mooy après la difficulté la facilité boobu waaw waaw mais du ma ko mën a développe fii télé la mais xam nga li ma bëgg a wax rek man au delà de ñoom Sonko damay faral di wax naan xam nga tey ñoom li ñu waroon a jox viatique jeunesse bi. Mhm. mooy ñoom dañoo am lu ñu gëmoon. Mhm. mooy seen projet bi. Mhm. ñu bund xataal leen. lu ne ñu dund ko. dem ci prison. façon naqar. façon def bu ne ñu def leen ko. ñu gëm liñ gëm. ba tey ils ont réussi liñ ne ba toog ci bopp réew mi. pour danañ si ñëw xaaral loolu dañ ko war a jox viatique jeunesse bi. beneen bi mooy ñi nga xam ne dañuy jàng toll ci. doomu Sonko bii nga xam ne démb ñëpp teg nañ ko cest à loo xam ne wane nañ ko ci réseaux sociaux yi fil télé yi ay jamono wane nañ ko télé privé yi li nga xam ne daloon na ko ren mu ñëw am ak mention pour man si même yu mel noonu dañ ko war a jël di ko dugal ci bopp xale formaté leen aussi mooy jàng ci école et compte public. waaw waaw yooyu yëpp yooyu yëpp daf doon ay éléments yoo faral di attribuer wala bokk di euh, askanale ñi ñi ñuy jiite mooy que seen i doom yi ci ay écoles yu bakkanal leen. ñu ngi yóbbu euh, wala ñu jiite leen ci ci bitim réew. léegi nag gis nga ci rupture bi pour man rupture bi nii woote lool bokk na ci. parce que xam nga xam nga maam Ngor mii du bàyyi ma kii. Mhm. bu njëkk école publique. Mhm. moo doon moo doon moo doon. ndam nekk ci boo dee xew réew mi ñu bëri ñu fi toll fi ñu toll ci mhm. école publique la pourquoi ñu dem ba léegi nag ba nga xam ne léegi jànge école publique sax mooy xaw a nuru gàcce ñu baal ma ci wax bi mhm. waxin bi mhm. euh, pédagogie moo koy wax léegi ñëpp école privée a dem loolu pour man jaar nañu defaat ci rupture ba delloowaat école publique que par rapport ak loolu dañu waxtaanee système éducatif bi mais comme bac bi mi ngi en cours ba tey donc dinañ ci ñëwaat bu baax a baax def euh, diagnostic euh, par rapport ak le système bi ñu war a repenser ak changement yi nga xamante ni le nouveau régime am na pour une ko ci inshallah lepp dinañ ko waxtane ndax euh, njang mom euh, dafa ci li soxalim rew a guerre ak rew euh, so gagné guerre bi njëkkee ci école ya ci daara ya ndax ko rek guerre bi donc kon dafa am solo ñu mën ko taxaw ko bu baax inshallah dañ ci gëna ak ñi nga nañ kon c'est par la même occasion ki